leçon numéro soixante onze masalikul jinaan wa faraxal mawla sunu boroom noppi na min arbahin ci yenti yëf ajal ab dik nit ka war dund sunu boroom dogal na ko ba noppi wa xuluxin ak jikko jikkoy doom aadama sunu boroom dogal na ko ba noppi bu naree baax bëgg ku baax bëgg lu baax bëgg fu baax bëgg nu baax nara texe ci jikko yu sell yooya nara texe ci jikko yu kawe yooya sunu boroom dogal na ko ca ba noppi da ko cay xiir rek mu jaar yoon wu jub am lu baax loole yal nañ ca yàlla xiir risxin wërsëg wala yàlla wërsëgal nat na ko ba noppi dogal na ko ba noppi waxalxin ak bind ne nit ka war bindo moxam moo góor la moo xam jigéen la ak ku melokaanam xees mba ñuul gudd mbaa gàtt yàlla dogal na yooya ba noppi ajal waaw waaw fa kullu man koo xam ne talaba ma ngay sàkku maa loo xam ne lam yux laxi sunu borom bindut loola taxi ba day sonn rek toola dëxri giir ak ndundam day sonn rek waaye lam yur saqi sunu borom du ko wërsëgal loole muy sàkku day sànn wala yakkoonu du nekk mukk xayruma ludut la nga xam ne yuriidu sunu borom namm na mu am ludut loola du am yow jaamab yàlla bi waras walaw arasta doon lente ne da nga xir di sàkku loo xam ne sunu boroom dogalut loola ayohal muriidu yow mi sàkku xam-xam loo xir-xir mënoo fexe ba am loo xam ne sunu boroom dogalu ko wominu fa yàlla yaati lay bàyyi ko di dikk an nafu mbooleem xeeti njariñ ya wat dur ak mbooleem xeeti lor ya maxan boole seem yooyee fa sunu boroom lay bàyyi ko fajtanib yow jaamab yàlla bi nanga nga wattandiku nax yoxoo ya nga xam ne sunu borom da koo tere wat baxaa yow jaamab yàlla bi na nga topp amrohoo xam ne sunu borom da koo digle kon jëfal yemu digle moom sunu borom bàyyil yemu moom sunu boroom walaw xalquhoo doon lente ne bindeefu yàlla yépp ijtamaa dajaloo nañu ala nafxika ci jariñ la yow bindeef waa àddina bépp dajaloo di jiima jariñ lam yaqdiru duñu ko man lam yaqdiroo duñu ko mën aw dun mukk alayhi loolee ñu bëgg in manaha su fekkente ne yàlla narut loolee am ba àddina yépp buñ dajalewoon woon di la jiima jariñ duñu ko man su fekkente ne yàlla nanguwut loolee am ballu fi nekk law tamaalaxoo doon lente ne waa àddina bi yépp mankoo nañu ala taxriiki ci di jiima yëngal lisaratin zaratin lu tuutee ni aw sangaleeñ suuf bu ko wa addina bépp mankoo woon di ko jiima yëngal faqat dong lu tuutee noonu addina bépp alla dajaloo ci yëngal loole doona iradatin mina rahmaani te yàlla namul loole yëngatu lahajasoo anhu ñoom ñépp dañuy lott ci yëngal sànq lañ woowee mbaa fepp suuf woowee ndeysaan wenn fer ñent waa àddina bépp buñ dajale woon di ko jéem a yëngal yàlla narut mu yëngutu duñ ko mën a yëngal bilaa tawaane ci lu jóg yeexe kon lu defu rek ca yàlla la bàyyi ko bu ca yàlla andut dara du mën a nekk nun jaami yàlla yi nanu xam ne wa lama lépp loo xam ne asaabanaa dal nanu lam yakku ni nekkutoon loo xam ne yuriidu sunu boroom bëggoon na an yuxti ana loola ñàkk noo dal lu nu dal rek sunu borom nangutoon nammutoon loola ñàkk noo dal fi zaman ci diirab jamono kon lu dal sunu jëmm lu nu dab yàlla nar loolee am mu def ko ci kàttanam ba loolee am wa lama lépp loo xam ne axta ana teggi dalunu lam yakku ni loolee day nekkuroon loo xam ne yuridu an yusibana sunu boroom daa bëggoon loola dal nu kon lu nu dal sunu boroom a bëgg mu dal nu lu nu ñàkk dal sunu boroom a bëgg loole ñàkk noo dal min mi hani ci ay coono sëriñ Tuubaa na kon yow mi xam loolu yow jaamab yàlla bi fa siq na nga dëgërloo bii sunu boroom su ma takki laa teyit na nga wakkiilu alayhi fa sunu boroom ndeysaan na nga dëgërloo sunu boroom te wakkiilu fa sunu boroom wakkilu googu nag du caagee nag da faste say loxo ne yaakaar naa yàlla naa toog lépp dina baax ah faw nga ruuji faw nga ji faw nga raadu faw nga ji aw sëb mbaa riin mbaa dugub raadu ko nag di ko bay aka bayaat aka ballar ñi nag aka buddit ba lépp baax su lépp ñoree nag nga doog a diqi mbaa nga góob mbaa nga sëqaat saw sëp noonu kat lañ koy defe ba ci tibëb ñam bii boo ko sexee ne wàkkilu naa ci yàlla duma ko sàqami dina jàll boo yeyut won sàqami lu dem de ndax yàlla du defal nit lu man sabablu na nga yëngutu doog a yaakaar sabablu ndax ba nga jiyee sabablu waaye ba yàlla tawee mënoo taw yàlla tawal la mënoo aw naaj te taw ak naaj ñooy ñoral gàncax yë nga mënut lala la yàlla di defal molay lay naajal moo lay tawal molay lay uppal ngelaw la waaye bay baak bayaat baak buddet buddet baak raadu baak billar ñi ak diqi góob ak sëqaat sëb ña nag yaa koy def ak say yoxo boo demee ba togg bam ñor tamit boo tibe yaay sax yaay sax waaye boo tibbee ab tibab ñam sex ko bañ a sàqami du dem de bu duggee nag yàllaa lay reesalal ñam ba sa biir mu jariñ la ci sa wér yaram sëriñ Tuubaa kon nanga nga wëkkillu ci yàlla waaye nag noon la ñuy wàkkilloo wëdë te nga bàyyi anka ci sa jëmmu jooju tasab suban ak deng dengi wa wajalaa ak di jàq di déng-déngi di fër-fëri mu ne wéerul ci yàlla te bàyyi yooyu boo demee ba yëg fu futa ngi fër-fëri sax del tudd yàlla subhaanallahi allahu akbar walhamdu lillahi wa laa ilaha illa allahu baat yi gënal yàlla ginnaaw alquran de ko wax rek lépp lu la jaaxal sunu borom dina ko saafara te lépp luy dalal sam xel nga dal nekk ci jàmm ndax wéttali ko yàlla gi yàlla dina la ko defal sëriñ Tuubaa fa in takkun bu dee da nekk yow jaamab yàlla bi fa in takkun bu dee nekk nga saatikaali di boroom ak alihi ci yàlla yow jaamab yàlla boo wakkiloo ci yàlla te rafetal wakkiilu ga tanal dinga am bu saaratan mbégteem addina bilaa aw jaali te dootoo am muk njàqarey àddina ba pare nag mbégteem àddina moomu di nga ko boolee mbégteem àjjana yal nañ ko yàlla may laa tastaxil bul di soxlawoo bi risqi ci wërsëg rek doona taati te soxlawaale woo ca ak jaamu yàlla booy def loolu kat di soxla woo wërsëg rek di wut wërsëg rek ban caa booleeg jaamu yàlla loolu fa tuxramal raaxata daf lay xañ ab nooflaay wa safa ak ramuga addina ak kon loo soxla woowu soxla woo soxla woo wërsëg na nga ca boole ak jaamu yàlla ndax li annawoo woo naka moom sunu boroom waxada dige na bi risqi ca mboolem xeeti wërsëg ya moo koy jox jaamam yi kama daminahu noonu it lanu sunu boroom moomu gaddoo lanaa ñel nu maxan mboole sunu sunuy wërsëg wa ax sama te giñ na ko ne moo gàddul ñépp seeni wërsëg wasalaamualeykum